asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di baal di leen jaar mbaa yéen jàmm ñu ngi ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen su fekkee da nga am batterie buy gaaw a wàcc buy gaaw a fay indi la ay problème vidéo bi yaa ko moom juste rek suivre vidéo bi di ba à la fin incha allah di nga comprendre mu naa loolu nag ñu la ñaan benn affaire bu ndaw nga abonné euh, ñun nga bës cloche notification bi pour bépp vidéo bu ñu def sol nga téléchargé application bi nii boo ko téléchargé eh, nga ubbi application boo ko ubbi interface bi ni lay mel lii nag bouton bi danga koy fekk du du maanaam nii nga koy fekk mu mel waaye da koy taal soo diggee application bi rek taalal bouton bi à chaque fois tamit eh, del fexe bouton bi di tàkk waaye application bi doo fa la présenté lu am solo gis nga lii nii eh, wifi bu dee tàkk lu bëree bëri day lekk batterie lu bëree bëri pour ñu tënk rek vibration bi nii téléphone buy vibre nga xam ne booy vuyu day vibré booy décroché day vibré eh, day lekk télé day lekk batterie day lekk fii tam day lekk batterie laa bëgg a wax day lekk batterie lu bëree bëri moom bii nii kon da nga koy désactiver affaire bi son bi ñëw GPS tamit da nga da ngay fexe ba du tàkk saa bu tàkkee nga désactiver ko da nga bëri ay application koy utiliser eh, Bluetooth saa bu saa soo ci paree nga xam ne defatoo ci benn yite gaawal nga fay ko léegi léegi léegi bul xaar dara moom itam day lekk batterie lu bëree bëri beneen bi bii nekk moom moo gën a gravati nag données mobile données mobile moom su fekkoon application yépp dañuy lekk lu mat 10 pour cent moom dina lekk lu mat cinquante pour cent ci batterie bi données saa booy jër jëriñoo internet boo ko taalee soo paree ci internet bi rek li nga doon yittewoo boo ca paree rek gaawal a say données mobile parce que euh, données mobile non seulement day gaaw a jeexal batterie bi wante day rey batterie bi day dem ba sa batterie téléphone données mobile yi daf koy rey parce que boo seetloo boo taalee données mobile yi bu yàggee tuuti ni ni ni sa téléphone di tànge am na nooy seetloo bu baax baax ñenn ñi kaw kaw baax de notification yi mooy tàng ñenn ñi batterie bi ñenn ñi fenn fu ne la donne yi di tàngal donc données mobile bokk na ci li nga xam ni mooy gën a gaaw a rey ab batterie beneen bi su fekkee mën nga ko saa booy chargé nga def ko mode avion tamit loolu lu am solo la su fekkee mënoo ko tam booy chargé fii nii eh, nga xëcc ko ba mu jeex takk ba nga xam ne si dara desetu ci waaye moom tout le temps moom del fexe muy yam ay 10 pour cent ay quinze pour cent yooyu noonu te nga nga ko ci bi ci barre de barre de ko nga bañ koo def automatique parce que boo ko defee automatique di nga nekk foo xam ne si dina leer naa ñi te yow doo ko bàyyi xel su boobaa nag day continuer di lekk sa énergie batterie beneen bi tamit application yii nii application boo tijji ba mu def nii nii boo ci paree rek comme bii boo paree naa ci eh, TikTok dama koy fermer pare naa ci bii dama koy fermer pare naa ci bii dama koy fermer parce que boo fermer wul mi ngi ci suuf wante mi ngi jël ci batterie bi loo xam ne si eh, bàyyi woo ko xel waaye ma nga ca suuf waaye mi ngi liggéey li muy liggéey donc boo paree rek. voilà bii saa boo ci paree nga xam ne si liggéey nga ba pare moom itam nga ferme nga xam ni euh, kon euh, di nga am chance sàmm sa batterie sàmmaay goo xam ne si euh, suñu borom mën na laa dimbali yooyu yëpp mën na laa bañ a te arrivé mooy am na leneen lu am solo tamit loo xam ne si dina sàmm batterie téléphone muy Play Store démb jaar nañ fi mais man mën nañ fi jaaral ci bu gàtt boo dikkee Play Store da ngay dikk ci bar da ngay dikk ci logo bi nga ñëw paramètre dikk euh, réseau préféré dikk mettre à jour lii fii nga koy bàyyi fii delivery automatique waaw moom fi nga koy bàyyee soo ko bàyyee fii parce que su nekkee ci yeneen ñaar yëpp nii rek euh, ni ñuy demalee seen bopp automatiquement loolu rek day jël ci batterie bi am na si lëf loo xam si dina ko jël ci batterie bi loo xam ni euh, soo ko éliminé woon moom soo ko éliminé woon ci lay gën donc mettre à jour automatique bi tamit bii nii tamit fii la baaxee fii nii boo ko defee fii nii saa bu tel saa bu application bi déclenché di mettre di mettre à jour boppam day jël ci téléphone bi lu bëree bëri loo xam ne si euh, boo ko fayoon dina la gën a dina gën a dimbali sa batterie donc euh, su fekkee daal tënk nañ loolu moo nekkoon li nga xam ne si moom lañ bëggoon a indi ci wàllu ci ci problème mu batterie bi su fekkee essayé nga ko mu baax nag fay lay xam su fekkee essayé nga ko tamit doxul tamit nga bàyyi xel yi ñu la ci jox yi quoi nga bàyyi xel conseil yi yëpp nga xam ne si moom application bi dajale gis application bi dafa dajale conseil yi yëpp yëpp mu ngi fii gisoo muy application bu am solo bu bañ a da ngay fàtte da ngay bañ a fàtte activer fii nii saa boo duggee ci application bi rek activer fii voilà kon loolu moo nekkoon vidéo bi asalaamaaleykum